jërë ngeen jëf ba léegi rek beneen combat ci combat yi war a am le 24 décembre fii ci arène nationale bi Gouye Gui 3 ak Marley numéro 2 Marley ci loo nekk mbay jàmm. waaye sant yàlla. na waa koñ ba. waaw ñëpp a ngi bëgg benn baraak. benn baraak. waaw. mbokk yi. waaw ginnaaw ñu jullee ci yàlla. di sant samay ñaari waajur di lay ñaanal fu ñu tëdd yàlla na gënal. amiin yàlla na suuf woyof seen kaw. amiin di gërëm sama papa Jille bu baax di gërëm sama sëriñ sëñ Bass alxuraan. waaw suñ Basiirou Ka di ko bëggee bu baax di siyaar ñëpp nag. waaw di bëggee kullu kum kuma fekk. waaw yéen ñëpp maa ngi siyaar. jaajëf guy gi. waaw Lamine ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaan yàlla bàyyi leen fi bañ fekk suñu njëriñ sant suñu sëriñ sëñ Bay si Abdou di sàkku ñaan si waa Tiwaawan yëpp di woo waa ak dëkk Lébu yëpp fukki penceeg ñaar yi si Ndakaaru. di nuyu waaw. di nuyoo sama adversaire bu baax di ko ñaanal jàmm ba le jour di ñaan yàlla ndam si kawam quoi. Mhm. incha allah lan moo la dugal si adversaire waaw mais ñun ay xale lañ amuñ lu ñuy xalaat. Mhm. bëre rek moo ñu ñor. xaw a tiit ne xaaral ma non non non kuy bi di si dajeeg luur yu nekk kii mënu la jaaxal quoi. loo nar sa diggante ak moom. du ma ko daan ko incha allah. du ma kii daan ko incha allah si lim jógee da siy waaw loolu waxu mbër rek. loolu waxu mbër rek moom avant tout d'abord man tamit dama ko remercier bu baax ci li mu def souvent ñun amaana fii làmb bu gisee mu demee nii sax li simple bee tax comprendre kon moom mi jël sama avance dama koy sant di ko gërëm di ko wax nag mu moytu bu baax bañ a fooyee xelam ah waaw te mu xam lay bëre. mu ngi xelam. mu mu ngi fooyee xelam. Hmm. waaw. mu boppam. mu ngi coxataan boppam de. Lamine moom tamit maa ngi koy sant bu baax ndax man jox nañ ma ku nekk mu delloo suma avance. moom mu jël ma. santante bi ngeen di bàyyi nag ta wax fii sant. non dinañ wax dinañ wax leen promoteur bi rek. te mobiliser bu ñu joxee ay mbër ku ñu jox mu bañ moom bu ñu jëlee dañ koy sant quoi. Ah. mooy loolu. lim si lim si lim jógee da ciy delluwaat incha allah muy defet su ko neexee su ko naqaree su ko neexee su ko naqaree incha allah dama koy. da koy daan dama koy daan yaa ko mën amul sax xalaat. da ko koo mën wala. waaye maa man maa ko ëpp doole. loolu waxu mbër la rek. yàgg nañ ko fee dégg kii boo xoolee yaramam bi nga xam ne dajul coono du garaaw laa la maata lay waxal de waa na xippi ay bëtam bu baax te xam ne góor la nag ndax barrière buñ ko tëjee yaakaar naa loo waxoon lu ne war ngaa jóom di def safaan boobu waaw hmm. noonu la def amul dellu ginnaaw non non le 24 amul sportif lañ sportif bu jaar yoon du am ay lex moom nee na ku xool sama yaram xam ne liggéeyu ma loolu moom si moom la gën a jekk hmm. te bu jour baa bañ si meeku dina xam ku liggéey ak ku liggéeyul kii hmm. taxumaa sax jóg taxulaa jóg billaahi wallaahi loolu dina leer incha allahu rabbi le 24 décembre fii ci arène nationale bi looy tàggatoo waaw une minute di woo sama mbokk yëpp waa Mbour Thiès xam nga waa Casamance xama nga waa koñ ñëpp di bëggee daal am bi ma àndal nii di ko sant bu baax di ko gërëm waaw ñoom Marley ak armée ak général ak. Marley benn kulukum na ñëpp ñëw ñu jàpp si. waaw fas yéene defal guy gi rek. jaajëf mu dem ñibbi Tëngéej incha allah. waa fukki penc ak Ndakaaru yëpp fépp lébu nekk ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp si combat bi seen doom am na combat. ñu def nañ daan def incha allah duma ko daan ko di woo di sant waa équipe Daaru Gëm sa bopp ak staff guy gi 3 bi yëpp. di woo ñëpp daal ñu jàpp si incha allah comme ni ñu ko daan defee ñu jàpp saa daan. jërëjëf joxante leen loxo.